mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen seen YouTube Kawtef TV international ginnaaw bi bàkk bi daanoo ñu fas yéene na jukkil Kawtef yi fi jot a ruuse ci kàllaamay wolof dila ñaan aussi nga dem abonné su fekkee abonné ko te bul fàtte de notification bi pour vidéo buñ duggal nga man video jot vidéo bi ma japp mu jëm ci Gabriel kan min wax na dafa ñëwon ci sëñ Muntaqa te mel melni ñëw gogu ñu bare bari ci nit ñi dañ ko ñaawlu te lu ëpp ci ñu koy ñaawlu moy ñi nga xamné xamoon nañ Gabriel kan dem ni daan défendre ay mbir yo xamné dafa aram ci l'islam ak di lu ak dolel ay mbir yoo xam ne diine da ko tere di jël ay àtte ci lislaam yoo xam ne dafa am ay nusus yu leer mu di ko weddi di wax ne wërta tëdde nii ak wërta deme nii ak doxal yenam démb daal tax nañu bare bare jàpp ne ku mel ne moom daal amul place ci kanam ku mel ne sëñ mun taqaa rax dool na jataay bu bindoo ci góor mën a yëkkati tek teg ci mbagum jigéen góor mën a yëkkati loxoom teg ci bopp jigéen nan da koy defaral nga xam ne loolu moom entourage bi muy ña nga xam ne ñooy saytu ña fay dikk ak ña fay jóge waroon nañ ko corriger ca sansa waruñ ko war a mën a bàyyi mu jàll ndax loolu ñu bare bari dañ koo ñaawlu ngir li lislaam tere jaxasoo góor ak jigéen sëñ Tuubaa it nekk ci misaal mu mat sëkk nga xam ne ay téeréem boo koy jàng loola nga tey fekk histoire boo koy jàng loola moo lay njëkk a leer muy bañ gi mu bañoon jaxasoo góor ak jigéen ba ci ay dëkkiinam sax ak dëkk yim daan sanc bu ñu la fa yóbbu woon rek ne la fii ab dëkkam la bàyyi la nga xool ak sam bàyyi la nga xool ak sam xel la nga njëkk a jàngat mooy ki doon ki sos lii wala ki nekkoon fii mel na ne ko bañoon jaxase ay mbir yu bokkut la loolu ngay lal sa xel di njëkk a jox donte xamoo luy histoire am ndax fu mas a sanc fu nekk rek dana fa tagg lu yaatoo yaatu séddale ko ay kees lam ci jublu mooy aajo yi bañ a jaxasoo lépp mën naa nekkandoo benn place waaye lenn lu ci nekk ak fa mu war a nekk góor ak jigéen mën nañ faa nekkandoo waaye kenn du teg bët sa morom ñee dañuy nekk fële ñee nekk fële te jamono ya muy def loola tàqale góor ak jigéen booba la gënoon a jafe te fexe woon na ba réussir ko kon day mel ne jamono bii la war a mën a gën a yomb ñun waa Sénégal nag daa bokk ci suñuy problème mooy duñ solutionné dara solution durable maanaam dara bu amee ñu taxaw gannaaw ñaawlu gaag ñaxtu ya ñu nangu caa jël solution boo xam ne moo koy jeexal tàkk nga xam ne loolu moom duutu amati loolu moom mooy li ñu jafe lépp lu am daal nekkati na jon ne ab problème toll ne ya, problème danañ ko ñaawlu ñaxtu ca waaye lañ ca yam benn problème daal di dikk jàllaat ca booba buñ ne am na ay barab fajukaay yu lakk ay nit faatu men rajo yaag tele yaag waxukaay yépp foofu la ñuy jëm mën nañ caa defub semaine buñ ca noppee transport ba am problème bu mel ne ba amon ca santé ba ñu tuxoo ca santé ba te problème ya ca réglé jàll ca transport ba buñ do nekké di ciow ak wax jang ma am problème ñu laaj tuxo dem ci jang ma problème nak niñ koy réglé ganaw ñaxtu yak njàmbat yak ñaawlu ga da ca wara top moy mooy responsabilité wax né problème yi lan moko waral lu tax mu am su fekkee da tagé won ci ay loxo loxo yi ñan ak ñan ñoo ci laalé buñ ci noppé né li moy solution bi li nga xam ne buñ ko toppee lii du fi amati te gannaaw buñ ne lii mooy solution bi ba noppi nañ ko nangoo appliqué mépp réew mu avancé ci àdduna lii moo ko avancé mooy doo xaar sax ba dara ne ba dara am day door a jóg waaye da ngay anticiper ndax gouverneur bu mu mën a doon dafa war a teg ci pré ci prévention di bàyyi xel loo xam ne ñëw lii kat amut waaye nangam mën na cee juddoo lii kat amut waaye mën naa ami ëllëg di gàttandu problème yi balaa mu ne këtt ne su ne na jonn gannaaw ñaawlu gaat njàmbar gaag yépp ba noppi càmbar moo ca war a tege li am num amé ak lu ko waral suñ ko noppee lii mooy solution yi suñ ko noppee ñu jëfe ko loolu mooy avancer mbir mu mën a doon rawatina am réew man la ma waxoon juróomi at ci gannaaw moom laay répété waat tey ndax problème bu mel nii mas nañ ko fi wax man booba damaa waxoon ne ah, kilifa gu mag gi jëpp ma ne ñett nit ñent juróom juróom benn war nañoo doon ñoo xam ne ñoom ñooy décider ku ko war a gis ak ku ko war a gis te sax mën naa bañ a doon ñëpp waaye du ci ñàkk ay benn benn yoo xam ne koo ci joxoon sax cinquante mille ba cent mille franc boo waree ñëw da nga ñëw boo wërta ñëw da nga ñëw dana fexe fexe ba nga mën a gis kilifa gi waaye dañ ko waroon a organiser noo xam ne nii ak kuréel lañ koy dénk nga xam ne ñoom ñooy saytu ku wara ñew ak ku warta ñew soxla wuñ ci yow dara ndax doon nga ku wara ñew wala deet ak lañuy xol ta loolu moo am fépp ci àdduna bi gépp kilifa koo xam ne saa bu xëyee lu jege cent personne danañ ko dikkal day am ñuñ jël teg seen loxo organisation ba nga xamne ne ku ko bëgg gis da ngay demander audience rawatina kilifa go xamne mom dañu jëlale sax 100 personnes waye man na xey yendoo recevoir ay nit man na ko fanane mom moy dem ba gis ne rek waxtu mayetu ko mu dakkal ko bu suba wala benen bis kon barab bobu mom moy barab bi gëna mata yitté wo ci organisation bo xamne dikkin wa gisin wa ak ñafa wara ñew day am ségg bu wér wër par exemple président de la république du jàgg nag ku ko bëgg a gis rek mën koo gis képp ku ko bëgg a gis dangay demande demander audience dafa am fooy jaar ne da nga ko bëgg a gis ñu def ab liste jox ko ne ko diw ne na dalaa bëgg a gis diw mii dalaa bëgg a gis ak diw ak diw mu ne kii na ñëw ñu accordel kooka kii bu mu ñëw ñu daal di rejeté kooka te it ne laa man ngaa ñëw it du càgg na bis bu la neex ngay ñëw dañ lay sàkkal bis booy ñëw sàkkal la heure booy ñëw boo dikkee it doo fa duggaale lenn loo xam ne day filmé wala muy enregistré ba nga mën di génn di wax naan président kat gis naa ko lii laa doon discuté ak moom nee na ma lii ma ne ko laa mili jang fay am dañ koy xam li ngeen fay wax dañ koy noté kon jamono moo laaj loolu kon kilifa gi it ni ñu koy gisee man jàpp naa ne daa war a am organisation boobu kuréel gu ñu koy dénk koo xam ne képp koo xamee ne ni ba ci président de la république bu ko bëggoon a gis ca ñooñu lay jaar demander audience. dañu jël la nag keneen ak keneen rawatina ñoo xamee ne nii léegi-léegi xay naa seen doxalin euh, man naa ump ñu bari maanaam ni muy leera ñenn ñi mën naa bañ a leera noonu ñu ci des am na ñoo xam ne sax fi mu ne nii euh, doxinu ñenn nit ñi duñ leen xam. mën nañ leen accordé ñu dikk fekk xamuñ seen doxalin xamuñ ne ñi nit ñi sib nañ seen doxalin ndax lii ak lii dañ koy def mu jëm ci diine su fekkoon kuréel guy saytu loolu am na nag jàpp nañ ne su boobaa yaakaar na lu mel noonu mën na caa mën na caa bañ a am képp ku fa ku fay ñëw ku fa war a ñëw lay doon na nga ñëwee dañ koy organiser ba yu mel noonu yëpp mën na cee mën na cee bañ a am su fekkee ne ñuy ñëw dañoo doon rek nga xam ne dañuy siyaar si kuy siyaar si moom moo gën a yomb lijjanti ndax moom ku ko dénk rek la soxla ak ku ko ñaanal ñooñu mën nañ dina dajale ñu nekk mbolo ñu ñëw gisandoo ko mu wax leen lam leen di wax ñaanal leen ñu dem su dee koo xam ne nag aaju moo ko yëkkati ngir gisee lifa gi kooka moom moo jara sedd ay minute wala ay waxtu kem aajoom nam toll ak lay tax mën a mën a waxtaan ak kam yi waxtaan ak lépp organisation amoon daal mën naa nekk waaye bu ñu ko bàyyi yéen nga xam ne quelques personnes la tege seen loxo. mbokk yi dal leen jàmm ci seen seen YouTube Kawtef TV international ginnaaw bi bàkk bi daanoo ñu fas yéene leen a jukkil Kawtef yi fi jot a ci kàllaamay wolof. di la ñaan aussi nga dem abonné su féké abonné ko té bul fàtte bés cloche de notification bi pour vidéo buñ duggal nga mën sé jot